dafa mel ni résultat bi génn. waaw waaw paa yi woo nañ ma léegi ni euh, noo génnagul de xamaguma lu ñu wax mënuma cee wax dara côté boobu mais dañ ne rek naa na comme naa jàllale ñëpp wax leen ni leen yeewi nañ ñëpp ba suba 10 heures la ñuy jo dinañ dinañ ko jullee fii ci jàkka ji suur ko caaro yi ci wetu papam waaw incha allah soobee yàlla dinañ jot koor bi lu mu guddi guddi dinañ ko jot incha allah. def lii Aziz Dabala la rey parce que kenn demul kër kenn Aziz këram la toog fréquenté wul kenn Aziz ñun rek ñun rek ñooy xuus dugg këram Aziz kenn du dugg këram maanaam appartement kër gi mu dëkk appartement bi ci kaw mën la ko utal billaahi kër gi mu dëkk quatrième mën la ko doon utal ki def lii nag yàlla na ko yàlla nit ki def lii du inconnu de xaw ma lan la mais ki def lii yàlla na ko sumb ki def lii <laughs> yàlla na ma sax lu may ma Seck doo bàyyi li ngay def yow tamit indil nga fi ñu ñëpp problème bàyyi li ngay def bàyyi li ngay def eh Fatou eh eh, eh su ma yëgoon dem toggal ko waaw ah, massa massa ma yëgoon dem toggal ko massa joxal ay waay fekk nañu loolu la soxla mbir laa yor ayca mbokk internet yu Dakar lay mu ngi noonu euh, naqar la wax dëgg neex yàlla métti na euh, ndaw si toog moom euh, tàggalikoo na ak sagoom day toog moom kese di wax ndax métit bi ndax nit kat bu ñàkkee bakkanam bu feebaree nga génn ci sa xel waaye koo xam ne dara dalu ko ñu faat ko ci anam bu doy waar Ndeye Gueye ñu ngi lay masaw bu baax baax di la jaale leen bokk ndax bokk nga ci ñi nga xam ne danoo ñàkk. ku ne xamoon na diggante Ndeye Gueye ak Aziz Dabala ah, gaa ngi noonu wax dëgg neex yàlla kenn mënut a uh, téye sa morom. yéen ñuy defal rek waaye yéen ñëpp dañuy di ñibbi lii dafa métti waaye wóor na yàlla lii dafa métti <laughs> ah lii dafa ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaale Mass wax ji nag dina métti lool liggéey bi sax dina jafe waaye lépp rek pour. képp koo xam ne seetaan nga vidéo bi rek nga ñaanal ko dëgg neex yàlla métti na ah, demee na ci ci ndaw demee na ci ndaw ndey gay ngi noonu kenn mënu koo téye ah, jigéen ñi wax dëgg neex yàlla ñoom ñëpp fi ne dañoo waaru ndax déegu bette déegu metti ki ko def nag ñi ngi ñaan yàlla suñu borom nit ko ci ni mu gën a gaawee ci ni mu gaawee ndey gay ñu ngi lay nuyu bu baax di la di la massaw di la jaare

sant yàlla rek maas maa ngi lay bu baax maas moom dem ba tey ñoo nekk nekk ci amet dem ba tey ñoo nekk mais yàlla ko yàlla nit ki def li ñaari nit Ouzin nekkee sa doom noonu la Aziz. xuloo ci association bi comme man damaa bari soir laa jël Cheikh Fara Fall su ma daan xuloo dafa ma daan woo ci suuf su may kaas daf may woo ci suuf ay déggee waaye li ngay def defeel nii ak nii te maa ko mag téeméeri ci nuyoon mais am na respect bu doxoon sama diggante ak moom yaay rek ndéggee te raar bi laa koy dégg laa jëkk ku neex xale yëpp yaay lañ may wax ñun ñëpp. gisoo ñoom ñëpp sama kaw lañu uuf ñoom ñëpp ku ci ñëw sama kaw ngay dal Aziz Dabala kii moom ko indiloon boogaa su ma amee programme mu ànd ak man dem fecc xaar sa xaalisam kii def lii tas na yaakaaru famille yàlla baax na yàlla baax na abi ñoom ñëpp la man xale yëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp fecckat yi ngay gis fi ñëpp ñoom ñëpp billaay ñoom ñëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp gisoo suma xewlee ñoom ñëppay ñëw lu waay jàpp danga koy bàyyi ah xëy na yàlla nii la ko bëggee woon yàggul kii moo dem këram kii moo fa demoon boogaam moo fa demoon matu matu sax 5 jours boogaa moo fa demoon boogaa ne ma Aziz dafa xaw a feebar ma ne ko dinaa ko seeti mun a ma ndéggee la moo tax gisuma la boobu ba tey dag maa bàyyi ma ne ko dinaa ñëw seet la di ko tooñ naan ko sëy ma jàpp rek mun a ma sëyal ba dee de barke sëñ Touba naa ma sëyal ba dee de naan ma référence nga laajal kii boogaa ngi ni mooy sama seede référence nga loolu rek la may wax ci man la gisee kii bay ànd kii di yóbbu kii ay tournée ñu koy fay jëmm ji ki sama doom la buy dem fu muy dem Nabou Leye lay àndal ak kii ak Ndeye Khady ah, man dem ba tey nag wax dëgg yàlla jooyu ma man maa ngi nii di soog a di soog a jooy parce que bi ma xoolee yaayam rek metti na lool mbokki internet yi topp dakaar live mi ngi noonu Ndeye Gueye nee na kàddu yi nga xam ne mujj na ko wax ak Aziz Dabala moo di rek dafa tëddoon feebar mu war koo seeti Aziz woo ko ne ko maa ngi lay dénk li ma lay dénk nag mooy sëyal ba dee sëykat nga muñkat nga maa ngi lay dénk nga sëy kon nag loolu mooy kàddu yi nga xam ne waaw boogaa mbay ah moo jël téléphone woo ko mu wax ceek moom ne ko sëyal ba de kon nag dëgg neex yàlla ci jihaat la génnee àddina moom am nañ ci moom njoxtu bu rafet ak nu mu mënti demee bàkkaat toppatu ko kon ñun ñooy jooy rek waaye Aziz mi ngi ci mbégte jamono ji ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko te xaare ko aljanna